programme bu mu mën a doon ñu ngi Tiwaawoon ñu ngi leen koy wax booboog léegi ndax xam ngeen bu weeru gàmm gi dëgmalee bu weeru gàmm bi teroo euh, xel yëpp day dem fi nga xam ne moo di Tiwaawoon xel yëpp day dem fi nga xam ne moo di ci gàmm gi foofu la ñu jëm nag waaye gis ngeen ne booboog léegi ñu ngi àndandoog yéen ci burdu bi démb la woon li nga xam ne moo di fukki fan yi ñu tëj burdu bi tey noppalu noonu la ñu koy waxee waaye ñun duñu noppalu benn yoon ndax dañu ci profité daal di wëraat bu baax a baax fi nga xam ne moo di Tiwaawoon rawatina ci biir euh, kër kilifa yi euh, fi ma nekk tey moo di fi nga xam ne moo di kër soxna umul xayri si mu sëriñ Babacar si euh, fi ma toog tey jii euh, fas yéene séq waxtaan kilifa gi euh, moom dey defe naa ne bu ngeen ko xamul sax dégg ngeen turam ki ñuy dalal tey fii ci biir Tivaouane fii ci biir këram la ko fekk mu di sëriñ Babacar se moom la ñu fas yéene àndandool tey ci waxtaan wi la lépp ci li nga ne moo di programme gàmm bi ñu leen indil dellu di leen santaat bu baax a baax baax ci saxaw gi ngeen saxaw di wéttalikoo 7TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble sëriñ Babacar Cissé ñu ngi lay ziyaare di la dalal ci 7TV di la remercier aussi ci disponibilité bi. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam euh, soxna si ñu ngi leen di nuyoo. di leen delloo ziar. di leen ndokkale ci xew-xew bu tedd bi mm-hmm. ngeen ñëw sol seen dàll pour euh, couvrir ko. Mm-hmm. di ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa lépp lu ngeen ci yéene. Mm-hmm. ngir nit ñi xam ak ràññee. jëmale ci bés bi. ak borom bés bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xam ni moo ko ko sosaloon mhm. di Seydil Hadji Malick Sy mhm. radiyallahu taala anhu mhm. yàlla defal leen ci lu ëpp seen njort amiin amiin amiin tabarakallahu ñi ngi ci bég bu baax ci tànk yi ah, di leen dalal ci jàmm ah, fii seen kër la jërëjëf ndax Maodo këram moo waxoon ni euh, sama kër santul si nee na yàlla la sant ku yàlla ñor rek ci kër gi nga bokk mhm, mhm, mhm. mu ñaanoon beneen nit ni ñaan naa sama borom ba nangul na ma ko yàlla bu nu xàmmee sama doom ji ma jur ci deret ak ki ma jur ci mahanaa ma ni leen toloolu yàlla nangul na ko kon ndax bis bu nekk nga dem ci barab soo àndul ak nit présenté woo sa bopp <coughs> du nu xam ni ci njabootu Seydil Hadji Malick nga bokk te loolu yëpp ci modestie am ak xam àddunaam xam jamono moo ko waraloon mm-hmm. donc fa tabarakallahu ñu ngi lu tànk yu baax ah di fas yéene seq ak yéen waxtaan lan ca lanu ci yàlla may sunu àlluwa bëttul mm-hmm. waaye lanu ci yàlla xam loolu tuuti rek ñu man ko partager ak yéen ak nit ñi jërëjëf Serigne Babacar Cissé ci dalal bi mm-hmm. euh, mbégte la ñu am ñëw file ci kër gi fekk si la ci biir kër gi waaye itam balaa ñuy sori rek kër gi fi ñu ñëw kër soxna mu xëyri kan mooy soxna mu xëyri waaw soxna mu xayri si radiyallahu taala anha eh, moo doon taw sëñ Babacar si bu jigéen digganteem ak soxnaam soxna Asukan mhm. radiyallahu taala anha mu bokk ak sëriñ Cheikh Al Maktoum sëriñ Abdul Aziz Al Amin ak sëriñ Pam Malik mhm. ak soxna Zeynab ak mhm. soxna Aminta benn yaay eh, mu nekk koo xam ni nag dàkkantalam dafa naa ne réew mi yëpp xam nañ ko mooy borom waañ ndax dundam yëpp daf ko jël consacré ko ci dundal nit ñi mm-hmm. noonu la def ba ni mu mujjee boromam fa tabarakallahu feebar bi ko yóbbu bërzaq ci waañ bi la ko daaneele te boobu sax elle voulait pas bëggul woon a sax bàyyi mm-hmm. mais nag ci leen ko forcé nag ni ko sa yaram neexul da ngay dem nga faju soo wéree nga si du ma fàtte mukk mu ngi tombe woon ak période gàmmu nii gàmmu gi jub si. Mm. mais moom tout son problème bi li tax mu doon bañ mooy su ma demee nu ganu nu nu ganu sëñ Hajji Maalik yi ganu sëñ Babacar Si naka la ñuy def mais ñu ñu ko mais yàlla fi nekk soo fi nekkul it xale yaa ngi fi mm. ci lañu ko forcé ba sëñ Abdou ñoom sëñ Cheikh wax ba mu yóbbu ko hôpital mm-hmm. mais yàlla def ci moom li ko soob li ko soob ba le 2 décembre 1991 ci la génn àdduna ndeysaan ñu ñëw uufal ko bàyyam fii ci ci hmm. biir rawdu bi quoi donc fii la nekkoon fii nag aussi dafa amaat beneen beneen euh, taarix moo di ni fii aussi barabu sëñ Babacar si la woon hmm. ndax sëñ Babacar laata muy tabax bâtiment bii mu génne àdduna waaw fii la fii la installé woon euh, maa ngi fàttaliku boobu yàgg na boobu ndaw lanu ndax boobu fii melagul nii Euh, ay baraak la woon donc néeg sañ Babacar fii moo fi nekkoon euh, en dur léegi biñ koy biñ koy bi soxna si décidé pour nag ñu defaraat ko dañ ni bu ko kenn tocc mhm. donc mool yi dañ ko doon teggi benn par benn mu nekk mool yu xonq yu yàgg yooyu donc yooyu lañ ko defaraat rek ngir pour conserver parce que xam nañ que ni nitu nitu yàllaa fi dëkkoon dafi mhm. daan jaamu yàlla bi mu fi jógee soxna si fii la nekkoon. ba ni mm. ko boromam moome mu dem. Ah, ñun ñu des fi. Mm-hmm. toogani fi en attendant. yàlla na ngeen ah. fi yàgg. Eh, ni ko sëriñ Habib di waxee ñuy wéttalante. amiin amiin yàlla na ko yàlla def. dañu ñëw fekk si la eh, sëriñ Babacar ci li nga xam ne moo di mm-hmm. ci gàmm gi. Mm-hmm. gàmmu gi nag contexte bi mhm. ak yëpp ak fi nga xam ne xëy na sax am na ñoo xam ne gis nañu Tiwaawoon mhm. ndax li fi jaar yëpp covid beeg ak yooyu noonu mhm. ñu ngi dellu di ñaanal xalifa bi itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér suñu borom defal am lool ndax moom suñu soppe la lool euh, ci contexte yooyu tey jii ñu bëri dañuy toog naan kilifa yi waxatuñu ñu ne ce que du xew-xew yi moo wàññeeku ba tax waxatuñu wala dañoo préféré noppi di di di seetaanuñu sax waaye dañoo préféré noppi daal waaw waaw xam nga benn am na su ne kilifa yi waxatunu ma posé beneen question est-ce que nit ñi aussi ñu ngi déglu. xam nga te dañu to toll ci contexte réew mi actuellement. Mm-hmm. xam nga soo demee ba kilifa soo waxee ku dul kenn mooy génn taxaw teg ci sa kaw. loo xam ni waxuma la yow waaye sa njaboot sax duñ ko mën a supporter. Mm-hmm. Eh, su boobaa da ngay toog jàpp sa njàmbur. Mm-hmm. te Seydi Hadj Mali radiyallahu taala anhu dafa daan wax wax bu gàtt bu am solo. nee na su ñëpp dee wax booba noppi jot na. su ñëpp dee wax noppi jot na. ñëpp dee wax noppi jot na. Mhm. te léegi pecc xoo am ci réew mi. loolu lay dëgg la. ña a ngi wax ña xamul surtout nag ñi xamul. ñu xamul ñooy wax. Mhm. waaw. ñooñu li leen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon. Mhm. rubay widaay. maanaam ñi nga xam ni nee na amuñu xam-xam xamuñu dara jànguñu. te lu nu indi ci penc mi ñoo ci ëpp wax. ñooy njëkk a wax ñooy njëkk a wax ñooy gën a xam. wallaay. léegi nag suñu demee ba tollu foofu ña xam seen bopp dañuy toog jàpp seen ñàmbur. Mm-hmm. te Maodo daf daan wax ni doom yéen a ngi ci jamono boo xam ni ñaara la ci mën a muccloo. Mm. téye sa làmmiñ ak toog ci sa kër. wallaay gàtt tànk gàtt làmmiñ. ba mu koy wax. Mm-hmm. jamono boobu. plus de cent ans. Mm-hmm. tey la wax ji gën a donc kilifa yi bañu ñu wax. mais est-ce que ñu leen di dégloo ngi fi ba léegi. Mhm. muy am ñuy wax ne ñu waroon a déglu sax ñooy wax léegi. exactement. te ci sa biir wax sa kàddu léegi dama dégg nga wax wax bu am solo. muy mhm. baat bu am solo mu di jàng. Mhm. te ku tudd El malik Malick wax jàng. jàng waaw maanaam Maodo jàng moo doon baasu dundam. ndax li ma wax que ni yàlla ci alquranul karim bi muy wax Seyduna Muhammad mission bi bi mu koy njëkk a wàcce ci moom. waxu ko ni ko demal julli waxu ko ni ko demal woor waxu ni ko demal makka daf ni ko jàngal iqra mm-hmm. bismi rabbika mm-hmm. ndax xam na ni njàng mooy baasu lépp mm-hmm. yàlla dafa daan waxtu ci alxuraan na ngeen ma xam bala ngeen may jaamu bala ngeen may jaamu yàlla soo ko xamul mënuloo ko jaamu donc Maodo jël loolu def ko baasu philosophie am dundam yëpp ko ci ñetti baat ja ju ba ja bi mooy jàng jàng ju bi julli mais jaamu yàlla ba bi mooy mbay liggéey maanaam nit ki soo jàngee jaamu yàlla liggéey nga jëriñu jëriñ sa askan jëriñu jëriñ sa askan te dama mës a dégg ci Serigne Cheikh Al Maktoum radiyallahu mu ni ku ñëw ni dafay waxal diine nan ko laaj benn question mhm. lan mooy métier mm. ndax nee na ku amul métier waruloo waxal diine mhm. aha kañ te Maodo ci mujj dundam dafa toog ak ay muqaddamam ñoom Serigne Alioune Gueye ñi leen sama dund day lenn dong laa ci réccu mm. ñu ni ko lan mu ni ñàkk am métier sëñ Aline Gueye ñu ko ah góor gi am nga métier di ndax yaa ngi gindi ruux yi di leen teg mu ni ko hmm. déedéet mu ni ko waxuma loolu ni ko loolu diine la hmm. diine bokkul ak métier hmm. góor gi nar a insister mu ni ko xam naa li ma la wax góor gi Aline Gueye ni ko waaw soo doon wut métier ba lan ngay taamu pour def ko mu ni toog ba si àndi quoi xam naa li xale yi di def day di seet nit ñi di leen faj seen yaram muy médecine neex na ma mais yamul ci loolu mm-hmm. mu ni ko tamit li ñuy tuddee diplomatie sopp naa ko ndax kun ni diplomate la mu ni làmmiñam luy lor nit du waru cee jóge déedéet xoolal loolu moom foofu la ko am parce que mm-hmm. xam nga nit ñi soxna si dafa am lu ñuy xeeb ci sunu jamono bi ñu toll. Mhm. mooy boyal sa làmmiñ rek. wax gor gu nekk nga teg ci moom naka sa dul noonu. te yonent bi wax na ci xadis ni yow nga jël ànd ak sa ndey ji la jur sëy ak moom. Mhm. nee na bàkkaar boobu nee na moo gën a tuuti bàkkaaru nga jël boyal sa làmmiñ teg ko ci kaw gor. mais te nit ñi léegi loolu toppatootuñ ko. Mhm. donc gis nga Maodo. Maodo daf daan wax ni nee na nit ki doo ko wax ni ko euh, bul mooy yàlla nee na da koy tëralal programme boo xam ni mooy yàlla du ci xàcc. Hmm, da nga koy da koy occupé. moo tax ñu tuddee ne moom dafa amoon stratégie. dafa amoon stratégie. day xëy su jógee ci jàkka ji mi ngi ci téere yi di jàngale di jàngale di jàngale ba diggu bëccëg jot waxtu tisbaar. ñu dem julli dellusiwaat. xay na suñ dee mos tuuti ñu mos ubbi waat téere yi noonu lay toppook nit ñi toppook nit ñi ba guddi nee na ku am programme bu day noonu yëpp mais su guddi jotee da ngay nelaw di nga tal leneen lu dul dem di mooy yàlla wallaahi dëgg la wallaahi dëgg da nga koy occupé donc da nga koy occupé mm-hmm. donc loolu moo nekkoon base euh, xam euh, liggéeyam mu jël xam-xam mettre ko au devant mm-hmm. di jàngal nit ñi mm-hmm. anam boo xam ni rek boo yaakaar ni nit war na ca mën a jàng rek moo doon jàngale na ko Mm-hmm. te dama leen wax ni que ni Maodo li tax mu mu dangereux entre guillemets. Mm-hmm. mooy gis nga soxna si dafa am ñetti ñetti fànn yoo xam ni nit ku ko am. Mm-hmm. ku ci am benn pour nga wax lu nu weddi dafay jafe. muy ñett yi mooy bi njëkk mooy ki nga xam ne dafa jàng. ba am xam-xam. pour mu wax lu lu nit. ñaareel ba mooy ki nga xam ni dafa xam péncam environnement environnement mm-hmm. Mm-hmm. pour mu wax lu ñu di dafay jafe ñetteel ba ki nga xam ni am na expérience de la vie mm-hmm. dem na fu nekk caafoonte naa ku nekk pour mu wax lu nit wedd dafay jafe Maodo nag yàlla daf ko mayoon mu maîtriser ñett yooyu yëpp dafa jàngoon am xam-xam jàng environnement tukki Maodo dem na fu nekk. Mhm. mi ngi koy wax mi ngi naan eh, mi ngi naan nee na weddi ma yombul. Mhm. mu ne ndax koo xam ni jé jéggi na téeméeri géej. Mhm. te géej bu ci nekk ngay fuur. nee na yow mi taxaw ci tefes bi. mënoo géej. ñemewuloo ndox amuloo gaal naka nga ma mën a dabe. mënu xam nga nag nitu yàlla yenn saa yi dafay toog nag nag nag nag fa gëddënam nag wax waaw waaw. xam nga moom la dellu woon wax mu ni ëllëg ëllëg bis penc nee na su yonent bi taxawee sallallahu alayhi wa ak ñeenti saabaam yi di na Seydina Aboubacar di Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Aliou mm-hmm. mu ni man Malick Fawad dinaa leen juróomeel mag ñi ni quoi ah, góor gi li nga wax rëy na di mu ni rëyul mm-hmm. ñoom lañu am lu leen ko may du liggéey. Mhm. liggéey naa nag. liggéey na de wallaay liggéey na. liggéey na te ñett yooyu nga nga wax ne. Mhm. ci la ci la ko tegoon. Mhm. muy li nga xam ne moo di ja. ju ak ba. noonu nga ko waxee. yooyu yëpp buñ ko delloosee. ci fi jamono toll. moom la ñuy utiliser pour mën a développer wu. exactement exactement. cest dire que euh, gis nga soxna si ñun dama ni yàlla daf ñu may chance te saisir chance bi. wallaay. xam nga am des des hommes de cette dimension. Mm-hmm. ñu am gis-gis boo xam ni euh, fii ba jamono di tukki nit du taxaw weddi ko. Mm-hmm. mu bind bàyyi fi. jàngale ngeen gis. Mm-hmm. jëf ngeen gis. te ñun mënuñu sukkandiku ci ci loolu pour mën a am benn élan de développement bu nu def ci sunu bopp. daf lay xaw a da ngay xaw a désolé wala xeeb sa bopp la wala wàcc sa am mais xeeb sa bopp la parce que moom daf daan wax ni nee moom li ko jaaxal mooy mm-hmm. nit ku ñuul kenn bëggu ko waaye bëggul boppam kenn bëggu ko waaye bëggul boppam bëggul boppam mm-hmm. sa bopp xeeb sa bopp wala dëgg xeeb sa bopp ndax tey Maodo téereem yi mu bind nga xam ni da ngay dem ba Égypte dem fu nekk ñu ko fay jàngale ñeneen ma mimi léegi ñu ngi ko def foofu ñu ngi ko def voilà mais te gis nga ci modestie ma ne leen euh, bourde bi mun mun a indil wallaay wallaay ma ni leen euh, li mu bind ci mimiya moo gën a yaatu moo gën a mat bokkul wallaay dëgg la ndax burdu Mouhamad Bousri mhm. def ciy tagg yonent bi mhm. ma ni leen mais ci mimiya nag Maodo def ñuy indil jaar-jaaru yonent bi yëpp. Mhm. bi ba mu nekkoogul ba mu sosoogul nekk leer mu koy topp benn par benn ba ni mu duggee. biir suuf wallaahi wallaahi. nekk junniy bayt ak lu teg. wallaahi. di trente chapitres. Mhm. mu wóor la ni tey suñ ko doon burdo xanaa dañuy def bokk euh, trois chapitres par jour. pour mën ko jeexal mën ko jeexal. Mhm. mais mu am modestie. xam ni Busiri li mu wax ci yonent bi fa tabaarakallaahu mais mu mu mu sagal ko indi ko. Mhm. Mhm. xam nga nit ku yaa dënn noonu ngay ngay doxale mhm. te li ma gën a li ma gën a frappé ci ci ci ci ci moom. mooy gis nga kilifa yi mu formé yëpp comme ci formé ba wóolu sa xam-xam du la tëyee def la taalibe. da def daf la naan demal li ma def ci yow nga def ko ci ñeneen. may leen affaire décentralisation moo ko fi njëkk a indi. waaw loolu décentralisation la moom. ndax mag ñi ko waroon. Mhm. ba mu leen jàngalee ba wóolu seen xam-xam daf leen a tas. Mhm. ñi dem ñoom maam rawaan ngom fa tabarakallah ma ni ba ba Gabon Côte d'Ivoire Niger fu nekk yebaloon na fa benn mag. Mhm. maa ngi wax fan yële ci ginnaaw xale yi ma ne leen waroon nañu gën a defaat yitte ñooñu. ñu dem toppatoo seen famille yi. wallaay waaw ñu ñu xam tamit fii moo doon source bi. Alaaji Maalik ga leen formé. ba tax ñoom ñu dem fa lañu fa taal ñu taal ko ci réew yooyu. waaw te muy dëgg. donc loolu tamit war noonu nañ ko mën a capitaliser. pour ñu mm. xam ne tamit ah Maodo kat wax dëgg yàlla doowul woon doowul woon cuune mm. nag. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. te ñiy seetaan di ko gëstu am na ñoo xam ne bu gàmm gi jotee rek la toog. Mm-hmm. di ko waxtaanee. exactement te nekk koo xam ne dañ ko war a waxtaanee tout le temps. tout le temps parce que parce dundam. sur plusieurs facettes. voilà. Mm-hmm. dafa bëri ay yoo xam ni euh, dama ni mënoon nañu at at chaque fois ñu jël une facette de sa vie waaw ni mu doon comporté woo ak ay taalibeem ni mu doon comporté woo ak ay soxnaam ni mu doon mm-hmm. parce que Maodo nee na nu mosula nekk ci jàkka ji yendu ci jam ba ngoon jot te su dee dugg biir këram la muy njëkk a def mooy jaar ca waañ wa pour ñit aaye tey muy leen jaraw lakk yàlla waay waay waay xam nga loolu Souleymane a ngi dégg loolu jaraw lakk xam nga loolu loolu loolu ñun defatuñ ko déedéet dañ lay toggal ak ñëw soo def naa nga football bool bi ni li ngeen ma toggal ndeysaan mag ñi nee nañ bés jóge na eh, eh, jàkka ja ñëw ba war a dugg ci kër gi mm-hmm. am lu mu doon yeggale ci kurusam nee na fi mu wéeru ci sàkkat bi mi ngi dégg ay taalibe ngi nekk ci biir këram di ko jëw naan moom daal këram gi laaxu daqaar rek te du sax am suukar mu bàyyi leen man wax ba noppi mu neen wante ak lew laahi te solo. mu ni leen sant ñu ma ñu jox ma ñu jox ma jox leen lu neex. te dama mm-hmm. sant ma jox leen lu lew. Mm-hmm. te li ma leen jox lew na. ku doon wattandiku ba soow li taxoon sopp ko ndax nee na dafa xamul ndax man ko ratte mës na ruur toolu jàmbulam déet. moo tax sopp ko woon. ndax bàkkaar boobu àttanu ko. ma ni ko ñun de suñu jamono waxuma la. nag koy dañ moom. voilà ma ni ko soo. <laughs> Ah, mu nekk nit koo xam ni fànn boo yaakaar rek. Mm-hmm. ci dund. Mm-hmm. bindi na ci. ñooy wax ci cohabitation ni mu nekkee woon ak taalibe yi ni mu mm-hmm. nekkee woon ak waa këram. soxna yi ni mu nekkee woon nag ci jamono yooyu ak colonialiste yi aussi. waa xam nga xam nga xam nga bii colonialiste yi ñëwee. ban ko njëkkee seet si nii ko dañu am projet ubbi ay école ci réew mi mhm. na boobu ngi yaakaar ni daf koy bañ ndax affaire mais mu ne leen d'accord naa ci ne leen ndax Babacar si mii di doomam su ngeen ma ko laajoon ma jox leen ko ni leen ndax dama leen di jiitu ci moom ba noppi lu ngeen ko jàngale ci rek daf koy jëriñ waaye du ko yàq hmm. eh, bu ñu bu ma la déggee ci sa biir kàddu mhm. sang bi da ngaa wax ba tudd baat bu am solo mu di jàng mhm. te ki nga xam ne moo waral gàmmu gi tey moo woote mm-hmm. gàmmu gi dafa fonkoon jàng mm-hmm. loolu sax mu di Seydi El Hadji Malick mm-hmm, waaw waaw xam nga mooy li ma la wax sànq ni euh, xam-xam mooy baasu dund nit ku amul xam-xam rek yaa ngi ci lëndëm moo tax yàlla la mu wax yonent bi daf na ko jàngal mooy la ko njëkk a parce que xam ni nit ku jàngul mais mënuloo jëf jëf junni mm. eskay te yàlla def ni jàng leen ma bale ngeen may jaamu mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu nag moo incité Maodo mu jël dundam yëpp comme ñetti baat yi ma la wax sànq tëgg ko mm-hmm. jàngale ci jiital jaamu yàlla parce que soo jàngul mënoo xam ni ngay jaamoo yàlla waaw te ku xëy nag jàng jaamu yàlla ba noppi liggéey rek a ci des nga dem liggéey waaw am métier mm-hmm. xam nga euh, damay am def fois benn euh, lu may metti xam nga dangay digg fi ñaan tijaan yi duñu liggéey mel ni que nii seen kilifa yi peut-être dañ leen a xiital na naan dañuy toog di weer rek <laughs> alors que alors que mais kilifa yuñ ci nekk fii la ko dale ci Maodo ba ci doomam yi ñoom Serigne Babacar ak i rakkam mais ku ci nekk amoon nga looy def amoon nga métier maintenant nag xale yi dégg démbam ndeysaan euh, sama rakk sama sang euh, Sidi Ahmed mi ngi koy wax ci waxtaanam bu am solo ci jàkk ji mu ni xam nga soo bëggee di xëntoo ay turu yàlla lii mooy def lii lii mooy def lii lii mooy mais non non non moo mu ni moo mais yóbbaale na ñëpp géew mm-hmm. taxawaay bi rek moo ci des fi mu toll mm-hmm. donc ba tax na moom dafa doon inciter nit ñi demal jàngi mais soo jàngee ba noppi nga wut métier. Mhm. et Serigne Cheikh teg ci mu ni mais nit ku jóg ni dafay waxal diine dañ ko poser benn question lan mooy métier am mhm. ndax nee na ku amul métier waruloo waxal diine. Mhm. te loolu soo déggee moo ko mooy parce que bañ nga dunde sa diine ndax Maodo daf daan wax na ni neena na su ma naree dunde sama diine nee na dem ca marché ba di tëgg tama ñu ma ciy jox ñaar dërëm sax moo ma ko gën a dina dundal diine bi lam lañu dundal diine la gëm waaye gëmul woon dundee dundee dundee. Hmm, comme li xew jamono ji. waaw mais maintenant léegi nag ah, ah, ku ci nekk eh, soo mokkalee benn xadis benn aaya benn waxu mag rek. nekk saa di bind Serigne Ba nga barki dem ci bur ci burdu bi voilà voilà di ko bind di ko partagé di joxe te te Maodo daf daan wax nee na nee na kaala nee kaala. Hmm. nee du ku jóg rek war ko teg sa bopp. ndax nee na bu njëkk ban ko daan def nee na pour xàmmee borom xam-xam yi la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. soo gisee mag mu teg kaala ci boppam nga xam ni kii boroom xam-xam la. Mm-hmm. soo bëggee gindiku ci mbir nga dem laaj ko. waaye léegi sama classe bi ku nekk jël kaala rek teg e puis gis nga gis nga gis nga soxna si réew mi dañ fi toll ci benn tournant bu xaw a doy waar. ndax damay wax ni ñaari piliers yi nga xam ni ñoo téye. ñoo téye woon réew mi muy diine ji ak politique bi léegi lu ci nekk nit ñi raccourci lañ ko def pour réussir leur bi <laughs> moom laa tuddee tuddee génération raccourci de amuñu chance. raccourci lañ ko def. wallaay kenn nangootul jàng. kenn nangootul jàng métier kenn nangootul jàng métier. Mhm. da ngay dugg ci politique parce que pour yow moo gën a gaaw pour nga am dara léegi diine ji aussi xale yi wala di nga nee naa leen xam nga léegi. Euh, euh, xale yi jonge ci waxtaan dafa bëri. wallaay dëgg waaw da ngay génn ci télé yi jonge ñu gis la kii commencé di la def loo conférence que voilà di xew waaw ay wut da wut ay buzz xaw ma nu koy waxee yooyu bon finalement mm. te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum li ngay wutee buzz bindoo ko exactement loolu day ci ko de waxi jàmbur ngay wax waaw waxi jàmbur ngay wax mm-hmm. te Serigne Cheikh Tidiane Sy dafay wax ni nee na ki nga xam ni day wax pour instruire ak kii wax pour séduire mm. dañ leen di xàmmee. wallaay mu dellu wax que ni nee na jàng ak xam-xam bokkul. waaw nit mën nga jàng te amoo xam-xam. dañ daan jàngi ba noppi dem jàngi ba. voilà mm. voilà mm-hmm. boobu nag eh, li may wax sànq ci li may wax ci Maodo ma ni leen eh, ñett yi nga xam ni mooy tax nit sa àdduna loo ci wax. pour nit weddi la ci sa pénc day jafe muy nga jàng am xam-xam mhm. benn bi nga xam jàng sa environnement mhm. benn bi nga am une expérience de la vie mhm. ñetti yi boo ci am rek pour nit weddi la dafay jafe mais moo di nag dafa boole woon ñett yëpp tabaarkalla waaw boole ko ndax tukki yi tukki yi dem na fu nekk dem na Égypte dem na. Mhm. Makka dem na euh, Alexandrie dem na Azerbaïdjan dem na. dem na dem na dem na. bon yooyu yëpp nag la capitaliser mais ñëw mettre ko à mhm. xam nga Maodo suñu la dee wax dundam ak lim fi mu jaar da ngay naan ni xëy na dund na téeméeri at. wallaay dëgg la. alors que dundul sax soixante-dix ans. est-ce que. parce que dundam yëpp daf ko daf ko sacrifier pour cause u diine. ku gudd fan mooy ku dundam am njëriñ. xam nga mag ñi dañuy wax ni bu leen di jaawale euh, fànn wu gudd dund gu gudd ak dund gu yaatu dund ki dundam yaatu mooy ki nga xam ni hmm. dem na mais bàyyi na fi loo xam ni fii ak ay siècle nit ñaa ngi ciy jëriñ wallaahi ki gudd fan nag dundam gudd mën nga jund téeméeri at mais soo soo dee bàyyiwuloo fi dara waaw waaw ah, donc Maodo dundam guddul mais yaatu na hmm. waaw ku nekk mën na ci jëriñu lu bëree bëri mën a mhm. jàng itam ci moom ni mu daan defee stratégie am mhm. mooy euh, da doon éduquer par l'exemple lu muy mhm. jàngal nit ñi rek moo cay jiitu moo cay jiitu noonu la daan def kon sëriñ bi ñu ngi may def signe ne ma waxtu wi dab nañu euh, waaye euh, bëgg nañ te jàngaat nañu bu baax a baax a baax ci ci ci ci ki nga xam ne moom moo initié gàmmu gi jàngaat nañu ci li nga xam ne noonu la fonkee woon xam-xam waaye fonk itam métier te te ñett la rek da ngay jàngi école wala nga jàng métier. Mhm. ba noppi nag euh, nekk ci mbay mi. Mhm. bu ko defee nag nga mun a nga mën a nga mën a jëriñ sa réew. wax dëgg yàlla jëriñ sa askan. jëriñ sa askan te loolu rek la mag ñi def. moom day dund li ma wax sànq rek euh, moom daal loolu moo doon stratégie mhm. yàlla defaloon ko nag ci jamonoom mu amaloon nag ñëpp jàmm. surtout colonialiste yi. colonialiste yi ñu ko daan consulter. waaw ci lu moom ci boppam wax na ci làmmiñam mu ni tubaab yi day suñu bëggoon ma bindal leen ci république. loo xam ni fii ba àddunay tukki kenn di ko weddi. wallaahi te ci diine rek lañ koy teg. waaw. Mhm. Mhm. mais euh, nu tubaab bi nawoon nañu xam-xamam. Mhm. defe naa ne li ci Paul Marty bind. ñëpp gis nañ ko. ndax xam ni borom xel la woon. xelam la daan jëfandikoo. il n'était pas un passionné. passion daawu ko dugal ci dara lu muy def rek xelam la ci digal. ba fa tabarakallahu tey jii liggéey yëpp man je me dis ni ñun dañu am challenge quand même. wallaay waaw parce que tamit. Euh, Euh, il ne s'agit gàmmu jot rek ñu ñëw firi mimie nit ñi daanu déedéet parce que en fait mais dund yonent bi mm-hmm. suñ la ko dee nettali du pour rek mu ne xis sa comme ça rek mais pour yow nga mën ci sukkandiku pour tabax sa dund la nga mën a jàng nga mën cee jàng jàngee mm-hmm. yonent bi dundam yëpp jikko la dëgg la te diine soo ci diine jikko dara desatu ca wallaahi wallaahi mais te nit ñi léegi seen jikko yi fu mu toll yàqu la waaw te seen xaaj maag daf daan wax ni nee na ñaari cëre ngi ci nit yoo xam ni su baaxee lépp baax su bonee lépp bon. Hmm. ñu ni ko mooy leen mu ni làmmiñ ak xol. làmmiñ ak xol. Hmm. su baaxee ci nit lépp baax. lépp baax mais su baaxul. Cissé ñu leen di sant bu baax jërëjëf <laughs> jërëjëf lan lan nga ñuy dénk ñu tëjee ko ngay dénk njaboot gi parce que nag euh, njaboot gi ngi lay seetaan bu ñu nee njaboot gi mooy li nga wax ci tàmbali gi rek mhm. euh, Seydi El wax ne këram santul si mhm. yàlla la sant ku fi ñëw rek wax dëgg yàlla euh, ci njabootam nga bokk man man daal li dama ni fi mu toll képp koo xam ne nee nga njabootu Seydi El Hadji Malick nga mhm. et wala même au delà nga nekk njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na lu xew ci jamono bii waruñu ci dugg. buñ ci bokk. wax ju ñaaw ji saagante yi tuumalante yi. Mhm. te ni jullit lañu ah déedéet kooku yonent bi jàngalewu ko. déedéet. mag ñi ko doon it jàngalewuñu ko. mais ñun nag suñu bëggee dund xam nga actuellement Sénégal dund pécc xoo la dund. tey jii lu ma su ma xamee ci yow lu baax sii dinaa ko wax. waaye bala may bala may kontaan rek xëy suba dégg ci yow safaan boo xam ni gaaw. partagé ko ñëpp wallaay. ma ne leen mais kii partagé bàkkaar bi moom tamit am na ci di. bu baax ah waaw ndax ka ka bind wax lu ñaaw. yow nga gis ko nëbboo ko nga partagé ko mais yéen a bokk bàkkaar bi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ba tax na daal na xale yi dellu siwaat et puis nag gën a privilégié njàng. parce que xam ni xam-xam moo yor réew. Mmh. gis nga tubaab yi gis nga tubaab yi tey jii liñ ñu rawee mmh. du dara lu dul xam-xam ma jox leen benn exemple bala may kii dama toog benn bi sama saal ma ma jël sama tele ma def ko avec kii méthode xaw ma pin bi ñu koy wax mmh. ma jàpp chaîne chaîne française après jàpp benn chaîne sénégalaise chaîne sénégalaise bi pendant une heure de temps werante politique boo xam ne kii naan lii la kii naan lii du li ma xool tubaab yi boobu ñoom ñi ngi lijjanti planète Mars suñ fa demee lan fa gis comme kii xaw ma lan. nu mu commencé jege. terre yooyu ñoom ñu ngi ci yeneen. ma ni sama waa kër mais xoolal différence bi. mais ne te yàlla yu pla yooyu bind ko pour mu nekk mystère ci ñun. déedéet. dafa bëgg ñu def ji euh, yitte. te yëpp mm-hmm. jàngal nañu ko ci alxuraan. Mm-hmm. mais suñu ñàkk yitte mooy toog mooy tax ba dañuy dem ba su ko tubaab yi découvrir ñu naan ah kon yàlla aaya sàngam lii la ci doon wax. dañoo dem ba tayal réfléchir. te yeneen bi sa boppam dafa waxoon aller chercher la science jusqu'en Chine jusqu'en Chine. waaw mm-hmm. ah, ah, waaw. Ah. ndeysaan ba Chine su fekkente ni xam-xam foofu la nekk. Mm-hmm. dem leen jëli ko fa ko fa. mais ñun léegi dafa tun loolu. déedéet waaw topp nañu adduna bi. Mm-hmm. defe ne ni alal. c'est ça qui fait le bonheur. alal dëgg la moyen la rek. moyen la pour nga dundu mais ça fait pas le bonheur. parce que ëllëg sa borom soo dee jàkkaarloog moom ah nit ñi ma nañ ko bàyyi xel de. waaw li bés dina ñëw boo xam ne yow sa borom kott nga rendre ko te su boobaa nag sa cër bu nekk dina seede hmm. la mu defoon hmm. waaw tànk yee dina seede loxo yi dinañ seede làmmiñ bi dina seede ah danaa bàyyi xel de jërëjëf li may wax xale yi may leen may xam ngeen jëw dafa neex lool jëw te noonu lañu ko tuddalee kaa ah, waaw jëw waaw <laughs> man sax loolu xaw ma ko woon ñu kaa la wax di kaa eh, ñu kaa ma ni xale yi ma ni waa luy kaa ñu ma ne ah bon <laughs> noonu dinañ koy defee pour moo tax daal vraiment ñi ngi ñaanaat xale yi ñu gën a soo gisee même te mu gàmmu gi ren mm-hmm. euh, nin ko defee ngir xiirtalaat ndaw ñi pour ñu dem gëstuwaat jàngale yonent bi mm-hmm. waaw mm-hmm. te jàngale yonent bi dama leen ni la mu wax ni yónni wun ma lu dul ma jagal jikko yi moo lay wan ni jikko jikko yi mooy baax te yàlla lam ko tàggee ci alxuraan sax jikko la ko tàggee bu jikko yi jagee lépp jag su jagul nag macha allah jërëjëf jëf sant nañ la gërëm la bu baax a baax sëriñ Babacar Cissé mu soxna umul xayri foofu la ñu nekk tey mm-hmm. soxna mu xayri si mu sëriñ Babacar si mm-hmm. ñu ngi tiwaawoon ba léegi àndandoo yen di santaat bu baax a baax équipe technique bi ma àndal mais di sant surtout euh, ki nga ne moo di sëñ Modou Sarr maa ngi koy sant bu baax a baax ndax moo ma yombalal mm-hmm. euh, gise bi ak sëriñ bi kon mu ngi noonu euh, ñu ngi leen di jox dig daje fii léegi ci kanam incha allah di leen wax ne rek dañu fas yéene àndandoo ak yéen incha allah leen di waxaat